Ken Ken mësul gis fu président de la république di visiter chantier HLM même ministre sax waru fa dem directeur de construction rek a fa war a dem ni kon déclaration bu mu fa war a def sa présence fille, moo mu di ko def seetal loolu dem def déclaration ni euh, fi régime socialiste mo fi ne du ñu nangu monopole mu ma justement Lolo taxone man ni la nanga ko déglu hmm. mu ni ma sa projet bi la ma ko baax mu ma kon nak on laisse tomber ma ni ah non ce n'est pas parce que c'est ngor waxna lolo. rek ñu wara a bàyyi ko parce que yalla fi nekk limu bind ci jëw nit kenn mënu ci dara mu suis ni kaf ma ko demal waxtaan ak mu dem projet nu man Sénégal 30% pour le yi rek la jox Sénégalais parce que gestion mënuñu ko Sénégalais yi mënuñu gestion am na bu baax doon ministre hydraulique te te nekk taalibe maam Serigne Touba mu ñëw ni ma waxal sengoor bu mu waxati nit ñi loolu parce que dafay ab aveniru xale yi mu defee ci boppu tubaab yi ne xale yi gestion mënuñu ko àdduna dafay tukki ma dem seeti Senghor mu ne ma oui man maa ko wax parce que fii gestionnaire amul fii bu ko defee trente pour cent yi soo bëggee ñu seddee la ko ma ni ko déedéet trente pour cent soxla mu ko cent pour cent la soxla ma ni ko danga may wax nag mën nga walla mënuloo mu ni ma mënuma ma ni ko bon li ma xam te xam ko mooy bu fi jógee nga jox ko ko jur loolu la yow pour yow sa famille rek a compté man compté wu ma sama famille compté wul ma ni ko wante tey la nuy deqalu ko abadan gis nga àllaaxira yàlla buñ fa gisee maag yow billaahi wal kitaab maag koo xam ma jog di dem mu ma ni ma man safaan taxul ma wax ko dama foogul ni rek fii dina fi un gestionnaire boo mën confier Je te dem doxu sa soxla ma ni rek ma confiance mu ni kon nag la confiance ma ni ko ñi nga mu ni parce que loolu xol bu sell mu fa yóbbu woon moo tax yàlla nangu ko waaw ba tax na yenn yi suspicion yeeg yu kenn xamul ci ay mukallaf ñoo xam ni daaniki rek ñu ngay xalaat seen bër sax waaye xalaatatuñu leneen nga defe ni ay pouvoir rek yu kenn xamul yu kenn xamul yu kenn xamul man noonu lay def ak ñoom laaj ko maître Abdoulaye Wade bi am na bés ñu yónni ko ci man président ivoirien bi moo ko yónnee ci man mu ñëw ni ma jógal dem Côte d'Ivoire gaaw balaa tas Ousmane Ngom jiitu na la laaj ko Ousmane Ngom laaj ko Ousmane ma tekk ba mujj ma ni ko demuma amu ah, ni ma loolu mënul nekk ñu daldi di woo Ousmane Ousmane woo ci téléphone bi mu wuyu ni ma président baa ngi lay xaar wutal naa wutal na la ñaari daluwaay wutal na la daluwaay ca hôtel ba Ivoire wutal na la benn ci Cocody pour nga recevoir fa daayira yi ndax éclatement dafay bëgg am ci noor ak sud ma ni ko ñëwuma rekk yam foofu ñu jaaxle moom mu jaaxle ba dikkee jaaxle ma ni demuma ñu bàyyi noonu ñu teg ci ñeenti fan ab Ablaye Wade ñëw ni ma wax yow ku la xamal affaire bi ni ma nekkee boo demoon àdduna tukki billaahi wal kitaab ni ma ku la ko xamal ma ni ko ah ku nekk ak sa kilifa waaw waaye yenn yi yenn yi ah soo amee yenn kilifa yi ñoo lay dimbale ñoo lay dimbale ci xalaat yooyu li ma ciy daj mënuma la ko nettali mënuma la ko nettali ba tax na affaire pouvoir ak piir teeg yu kenn xamul rek du noonu du noonu nag dëgg la nag mu ngi tolloog bu ñu demee ba kenn ku ne ni yàq ma gënal fexeel yow itam loo mën a yàq nga yàq ko waaw et puis surtout kooku noonu rek la boo demee ba ku nekk ni yàq ma gënal yow itam loo mën a yàq rek yàqal waaw kooku loolu rek la parce que moom rek a des bu desee ku ne ni damay yàq yow yàqal loo man rek waaw te jàpp ci yàlla nag man toujours noonu lay def toujours noonu lay def bu ko defee nu nekk fi rek di taalibe yonent bi nekk fi rek di taalibe cheikh nekk fi rek di taalibe Maodo nekk fi rek di taalibe sëñ Babacar si et puis leneen amul ndax itam ñaari silk rekk fi nekk silkul ambiya wa silkul awliya silkul ambiya yonent bi mooy xaatim bi amul werante te kenn négocié woo koog moom dañ ko ci dañ ko orienté obligé ko mu nekk xaatimul ambiya waaw waaye silkul awliya cheikh a nekk xaatim bi والقطب المكتوم والبرزخ المختوم ف... مملك كن فكوكوت ما القطب المكتوم والبرزخ المختوم تموي الغوث الرباني والعارف الصمداني ها كوكو كن كن فكوكوت kooku kenn fekk ko ci ndax itam <laughs> dafa am benn xarit bu baax la tubaab la te dafa gëm dafa gëm diineem nee na ma cheikh maa ngi ci sama juróom-ñeent fukki at mësuma tux mësuma naan mësuma doxaan sama jabar benn at laa ko mage te li ma mën mënatu ko ma di la ñaan nga ñaanal ma bés bi muy dee walla bés bi may dee nu bokk ko deeyandoo mu ni ma ma dee bàyyi ko gannaaw fasuma ko yéene mu dee bàyyi ma gannaaw fasuma ko yéene kon nag ñaanal ma nu deeyandoo ci benn fan te ki ma doon wax lii gisuma ku ko raw ci tugal te xaritu benn bakkanu sengoor la ma ni ko dafa am foo juume mu ni ma fan la ma ni ko tàgguwuloo sa jabar mu ni ma wax nga dëgg erreur bu rëy laa def mu nangu ko benen yoon ba mu ni ma comme léegi dootuñu xuloo ma wax la nangu naa Muhammad c'est l'un des hommes les plus intelligents au monde waaye nag mënul nekk prophète parce que prophète yaa ngi yem ci Isa ma ni ko pour chrétien mu ne patt ba mu yàgg ni ma wax nga dëgg juumati naa gan gi mu àndal ni ma mais man gëwma yàlla te moom mi ngi gëm yàlla te nu ngi xaritoo ma ne ko du ci dara parce que gëm yàlla yàllaa koy def ci xolu nit def ko deful ci sa xol moo tax gëmuloo ah parce que je suis philosophe te man ñi ma xam ni tout est dû au hasard Non, la ma ko ni ma laaj tout est dû au hasard mais le hasard, c'est une épithète parmi tant d'autres. Maniko hasard ah. c'est une épithète de la volonté de Dieu la preuve si vous appelez le hasard ce n'est pas le hasard qui répond c'est la volonté de Dieu qui répond ñu continuer noonu soow soow soow mu ni ma est-ce que alquran wax na ci dara ma ni ko waaw moom mu ni ma man nga cité verset ba ma ni ko waaw mu ni ma ban la ma ni ko atadona baax la atadoona baax la wa tadaruna ahsana alxaliqin ma ni ko loolu la ma ni ko yàlla xam na ni am na ñoo xam ne hasard ay seen yàlla waaye moo mu ngi leen di laaj moom yàlla ñi def hasard muy seen yàlla mu ngi leen di laaj naka la leen loolu dale parce que ñoom ñoo ëpp valeur hasard naka la nit di jaamoo lu mu ëpp valeur innakum wa ma taabudun min doonillah xam nga loolu tax nit ñi xàmme loolu gis nga ki féttéerlu di wone ne xam na ma moom guy gi lay jaamu yëgul ni guy gaa ngi koy rëbb yëgu ko ki féttéerlu ni mi ngi jaamu mbëtt mi mbëtt maa ngi koy rëbb ndax yàlla inspiré na mbëtt mi ak guy gi yépp ni seen nattu mooy ñu jaamu leen ne ko mais ki way kii jaamu xamul loolu pour wax la ni yonent bi kenn daf ko mënul fay ndax léppam dafa leer te itam dara mënu ko féete kaw moom itam mu nangul yàlla ni alquran mësul gis lu mel noonu yonent bi dafay daanoo àll ndax alquran seetal loolu te dafa dafa nàmp wax wax daf ko nàmp yonent bi dafa nàmp wax ci famille bu nga xam ni kenn mësul yem ak ñoom ci wax yàlla dollil ko ci la mu ko dollil ba bu àddoo ñépp a koy xool moom yonent bi waaye moom it bu alquran wàccee dafay jaxle kuy waxe nii kana ñu xam ni kon nag am na fu mu jóge waaw loolu kenn mënul fexe indi argument bu tegu ci kawam loolu mënul nekk parce que maa ngi koy waxtaan ak sama benn sët médecin la fekk affaire anticorps yeeg pour ni buur bi defe rek fekk yaramu nit mu def ci ay anticorps mais en même temps mu permettre yeneen yi microbe ñu jaar feneen dugg ci biir muy seetaan xare boobu seetal loolu mu ni ma c'est paradoxal ma ni ko justement il aime les paradoxes parce qu'il est Dieu le créateur mais il est Dieu le roi aussi loolu moo tax moom ku ko nangulul paradoxe yooyu du jubóog yow du jubóog yow ba tax na moom ku yomba jubóol la waaw te itam ku yomba def xarit la mais ci kaw nga dal ci kaw nga dal wa salli alayhim inna salawatika sakanun ci kaw nga dal euh, cheikh mbiram dafa dafa dafa yéeme ndax dafa doon gan fa mu nekkoon te itam agam àggul fenn waaye révolution yi mu def ci àdduna bi kenn mësu ko def ci àdduna ndax bi ñu nee circul awliya automatiquement dañu def délégation pour seeti ko pour proposer ko mu nekk xaatim bi mu bañ yonent bu moom kenn proposé wu ko dañ ko ko forcé pour mu nekk xaatimul ambiya mais cheikh dañ ko ko proposé ba xam dina nangu nekk xaatimul awliya wala du ko nangu

moo tax duma ko nangu ñu dem ceeg moom dem ceeg moom ba nga xam ni cofeel rekk mën na lu nekk mu soog koy accepté bi mu ko accepté mu joxe ñaari chart charte bu jëkk bi

yàlla di ko teg wëli mag mu bañ ma ko teg sanction la bu nga xam ni yàlla wëli wu mag la koy teg ak système bu bew système bu nga xam ni léppam ci matérialism la ko teg ñii ñaar la ko dencal kooku ñoom mënu mënuñu ci joxe garanti ba yonent bi benn yoon rekk li ci gis moo di mu nangu moom itam parce que mujj na nangu yonent bi waaye nag cheikh xam na ndax nangu yonent bi ci catu tuñ dafay wone ni am na chart moo tax mu laaj ko chart bi mu ni ko chart bi mooy nga compter ak ni ñuy tudde alxaasa maanaam booy wut taalibe taalibe ba na tudd Alaaji Omar booy wut taalibe taalibe ba na tudd Haj Malik wut booy wut taalibe taalibe ba na tudd Cheikh Sukayrij booy wut taalibe taalibe ba na tudd Ali Tamasini booy wut taalibe taalibe ba na tudd Ali Harazim booy wut taalibe taalibe ba na tudd Ibrahima Rayaaxe booy wut taalibe taalibe ba tudd ma kala booy wut taalibe taalibe ba tudd Alxaaji Ibrahima Ñas wala papam booy wut taalibe waaw koo ni taalibe yi nga am kenn ku ci ne mën na not continent seetal loolu ñu ni ko lool rekk moo la mën a soowee màq du tegu ci sa kaw waaye amul benn waliyu bu nga xam ni mën na rëcc màq maanaam day taal yal nañ ci yàlla musal ni muy tegoo ci système gaañ ko noonu lay tegoo ci waliyu gaañ ko parce que sanction yi ñuy teg waliyu ñett rekk la mahq ak tard ak xidlaan te ñu ngi koy prononcé ca xayb mahq ak tard ak xëdlaan mahq wali yu mat sëkk lañ koy teg

boo demee ci registre bi nit ñiy demee safara doo ca gis turam boo demee ci registre bi nit ñiy demee àjjana doo ca gis turam boo demee ci registre bi ci diggante bi dootoo ci gis turam ndax far nañ ko abadan te mën na am tegu ko boppam waaye borom gémmiñ guree ko ko teg parce que yàlla paaka la kenn du ko jëkk ci mberam boo mayee sa sëriñ ci sa làmmiñ lu mu ko mayul dula sacrifié yow sëriñ ba lay sacrifié noonu lay def moo tudd mbaax dañ ko ragal ñoom ba mu ëpp tarde nag wali yu xeex ak borom jamono lañ koy teg wali yu bu xeexee borom jamono kenn dootu ko informé te buñ ko informé wul dootul seen prestation yi te bu ko fekkeetul moo koy taxawaaloo yam loolu ci nekk nag moom moo ci gën doy presque doux du sanction mesure administrative rek la waa xaj boo def moy ni yàllay def rek fekk ko xel ma matul mu may ko wilaaye seetal loolu li bukki di wax ni xamul séddale ne yalla xamul séddale seetal fekk ko xam xel ma demewul nonu mu may ko wilaaye xam nga kooku buñu jëlul mesure

moo tax cheikh doon ko daw waaye nag bu ko bëggee rëcc nag dafay compter ci alxassa ndax mag ñi dañu mën a jàpp seen bopp waaw moo tax boo jëkkee ci mag ñi rekk mën nga rëcc waaye boo jëkkee ci mbooloo kese kese kese rek ñu gaañ la parce que dañ lay jox cir bu la yàlla joxul te yàlla paaka la kenn du ko jëkk ci mbaram mukk te lum la waxul boo ko ko sosalee fa la lay bàyyi sanctionner sa kilifa seetal loolu seetal loolu lu mat a bàyyi xel pard nag mooy wali yu ak boroom jamono kooku noonu rekk la moom it dafay dafay jël mesure demander pour ñu bañ ko informer te lu jóge xayb te ñoom seen bànneex yépp mooy seen contact ak xayb seetal loolu seetal loolu kon tàggu shahada ak xayb dafa jar lu nekk kon nag bul nangu ku la ko tere mukk bul nangu ku ko tere mukk mukk mag ñi dañ ci sonn yonent bi sonn ci yàlla sonn ci yàlla bañ na ko ba wax ni siddit gi yëngu ci seen xol maa ku gëna jege ci yéen kon nag nangu leen xayb ah kon nangu leen xayb wante ñun ñu ngi defe nit nii rek kese kese kese kese kese déedéet seetal lu tuuti loo xam ni bu ma la ko waxee léegi nga reetaan te importance am ëpp na dama am tante buy jàngale alquran ca ndar man sama tante dañ daan jàngale alxuraan ndax sunu kër ca ndar sama tante kantu ma fa indi tariqa qadiriya sama maam astukan mi ñu jur mi ñu tudde soxna astukan moo fi indi tariqa chadiliya sunu kër looloo fa ne moo tax sama tante kantum daf daan tux parce que tariqam terewu ko ko te comme goro la ci sëñ Babacar bu dee ñëw Tiwaawan sëñ Babacar dafay jënd lu pon pour gardel ko ko te dafay wax ni nañ ko jëndal pon mu xees waaw ne ndax nee ñu moo dàq seetal te cheikh moom sama turandoo nanguwul pon te mi ngi ko jële ci wadi li mi yax moom ci la ko jële ndax ba ñu daggee xob ca garab ga indi ko ci kaw suuf di seet bu mu bokkal ndey ak baay bi ñu ñëwee ci pon lañu gis ni moo eh, xob ba ñu jële ci yax moom benn la cheikh tere ko waaye bu yogoon du ko tere ndax lañu ko ca yekk lañu ko ca yekk tere lëf jaru ko yàlla xam na ko yàlla xam na ko su ko defee xëglaan moo ci gën a doy waar te moo ci gën a reelu wante sama tànt xale yi dañ ko ni waa daf ne xale yi bu ngeen dee génnee ci ngelaw na ngeen tàggoo dem fële ci kaw téxet rek waaw xale yi ni ko tànt mënuñu ko bu nu dee tuur ndox daanu tàggoo bu nu dee dem ci booru dex gi daanu tàggoo mais ngelaw bi nag moo di dikkal boppam noonu mu ne ah kon nag ma bàyyi noonu ñu ko waaw kay moo gën te xamul ni posé na foofu problème bu nga xam ni diggante xayba ak shahada kenn mënula ko nettali parce que waa xayba dañu naw ñi ci kaw suuf ba jàppe leen ay collègues dañu naw ñi ci kaw suuf ba jàppe leen ay collègue looloo tax lu ñuy def ci teraanga ñu fekke si ko waaye dafa am lu leen di gêner mooy xeet gu bon mën nañu ko supporter dafa leen di jox allergie seetal loolu moo tax pollution lu mët a wattu la waaw parce que ñoom du ñu jóg ci ñun man ñu ngi du ñu jóg ci ñun mukk moo tax pollution lu mat la lu mat la moo tax nga gis asxaabul waqt di laajte ki sëlmal rekk julli saf doxat ndax sañ na doxat walla sañul doxat ñu ni loolu ba lañ ko àttee dañuy seet ka ca xay ba te def ko muy xaritam bu fekki bu fekkee see julli gi bu sëlmalee ñaata seconde la fay def fokk ñu seet bu sëlmalee ñaata seconde la fay def ba xam dinañ ko may mu génne ngelaw walla duñ ko may mu génne ngelaw seetal loolu seetal loolu parce que ñoom ngelaw bi daf leen di gaañ tilimu néeg bi daf leen di gaañ ñàkk seetu darab bi daf leen di gaañ parce que fa ñu jógee tax moo tax pollution dañuy koy rëbb ñoom dañuy rëbb fu mu am baaxul baaxul waaye terewul dinga ci gis ko ñu charge ca xayb muy surveiller galaxie dara jaam àgg na ca galaxie bu nga xam ni nangami millions yi àdduna nga ci mu di ko surveiller

cheikh wax na ni xuuru neen yi tànn nañu jëkkër ba noppi seetal loolu xuuru neen yi tànn nañu jëkkër ba noppi kenn ku ne xam nga ka nga jël jëkkër ñu ni nag bu fekkee ka ñu jël jëkkër am na jabar ñu ni du ci dara jabar ja duñu ko jàppe wujju njëkke lañ koy jàppe parce que foofa noonante amul wujjante amul teranga rek a fa am bu ko defee buñ la jëlee jëkkër te am nga jabar ñu ñu jàppe ko njëkkee te ñu ngay waajal ñépp nag ci confection rekk la ñu dëkk di ko def ci ñaari tissu yu nga xam ni ñoo ëpp valeur ci tissu yu ci àdduna yépp mooy sundus ak istabraq yàlla tudd na leen ci alquran ñu ngay ñëw rek di tegal seen jëkkër yi waaw lenn rek lan dul ñëw parce que nee ñu civilisé wul mooy tubéy nanguwuñu seen jëkkër takk tubéy làmbaay rek lu muy doyee ci tubéy loolu kay doyee su tubéy dara làmbaay rek kese kese ndax tubéy yëfi ajam la waaye làmbaay nag koo xam ne waxtu wu ne yaa ngi soxla sa jabar kay ci làmbaay rek ngay mën a dëkk ba moo tax def naa ko ci xasida bi ma def ci sama turandoo waaw wal xuuru min bayni nawafil ah waay boobu loolu moo ci nekk mais suñu contact ak xay ba daf dul dog te ñun xamuñu ko yow yaa ngeeg xarit yoo xam ni looy def ci yiw ñu wàcc waaye yow sa yoon ci ñooñu li nga gën a bëgg daal mooy sa copain ya ca ndar jeex na bu kenn ñëwee nga dem lekki ceebi jën wala sa copain ya ca Kaolack bu weekend ñëwee nga dem lekk yaasa wala sa copain yi ca Louga bu fi kenn ñëwee nga dem lekk sa miche yi waaye ñii nga xam ni kenn ku ci nekk mi ngi surveiller galaxie te def la nga nekk seen collègue yëguloo saa ñu existé nañu wala existé wuñ kooku baaxul wàllu pollution bi nag li tax ñu foog ni mën nañ ko safara mooy ba tey moom itam dossier bu ñu versé wul ci xudusiyaat yi moo tax ñu foog ni mag ñi mag ñi mën nañ ko plaider xam nga lu tax ñu man ko plaider mooy fii ci kaw suuf fii ci kaw suuf ñi fi amee santé bu ñu dee yebal seen nit barab te bañ dara toppe ko fa dañ koy jox masque wutal ko ay gants te ñoom ils sont dix fois plus organisés que nous dix fois plus savants que nous est-ce que defe nga ni ñoom trouvé solution ci wutal ñi fi ñëw ay masque ak def man je crois que trouver nañ ci solution wante euh, li ci des mooy am conscience su seen existence fille, ak wël ak wéttal giñ nuy wéttali farata la farata la wéttali giñ nuy wéttali fii farata la waaye buñ ko réeree rek àdduna tukki waaw su ko defee nag ah ñoom ñu ngay waajal góor ñi di waajal jigéen ñi ndax jigéen ñey seen njëkke nga leen di ñawal lu ne góor ñi ñu nga leen di ñawal lu ne

mukk xam nga la mu ca daj kenn mënu la ko nettali moo di Cheikh dafa xëy rekk tere waa këram bale mbett ñu ni dafa rëy luñ ko ca yekkul dañu ko fàtte wante dañu ko déggul dégguñu ko dégguñu ko dégguñu ko cheikh dafa wax ni fu budget am bu fa bénévolat am parce que ñàkk doomu aadama dafa foor te kooku sañ na ko sañ na ko fu budget am bénévolat waratu fa moom la wax te kooku sañ na ko te bu dul loolu sax Maodo bokk na ci principe am yi atakabburu ma al mutakabbirina ibada seetal loolu atakabburu ma al mutakabbirina ibada waaye Cheikh dafa wax ni fu budget am bénévolat waru fa am xamuloo ne ñàkk doomu aadama dafa fort fu budget am rek lu mu fa def war nañ ko fay fu budget am lu ñu fa def rek war nañu fay ka ko fa def lu ko may dañ koy fay waaw moo tax di woote ni da gëm yàlla moo tax ngay seet setal ak yu kenn xamul te kenn du la jox dara te fekk budget baa ngi fi kooku ñàkk fayde la waaw waaw loolu la Cheikh wax te moo moo am dëgg ba muy wax itam ni euh, xobu ya euh, euh, yax moom bu ko njabootam jëfandikoo lu ne yàq nañ ko ko waaye gisal tey forum bu ñu naan wattul pon seetal ba mu ko waxee na mu yàgge te bërki démb rek gis nga daje scientifique yi lañ ca wax ñu wax ni ndax ñoom dañu naan yàlla rey na nangam oto rey na nangam e, e, pon rey na nangam alcool rey na nangam ñoom loolu la wax te dëgg la yàlla ku dee moo la rey waaye lii itam ñu wax ko farata la ba ñu xam ñoom luy seen paaru responsabilité ci mbir yi ñoom ñoo ko waxal seen bopp ni poon rey na nangam yàlla rey nangam kon nag li poon rey ren moo ëpp li yàlla rey ñu ni ñu ni oto rey na nangam yàlla rey na nangam ñu ni li oto rey moo ëpp li yàlla rey ren wax nañu dëgg xamuloo ni loolu bàyyi ci xel dafa baax waaye yépp nag yàllaay rey moom de ci loxoom la nekk waaye rek pour wax la ni ca njëlbéen ga lu ñu leen wax ñu weddi ko mujj gi nangu nañu ko waaw ndax li oto di rey kenn xamatul na mu toll li alcool di rey kenn xamatul na mu toll li xamatul na mu toll te lool la moo tax bu rupture amee rekk système yi ak bu asaman aduna tukki parce que d'autres am kenn ku leen protéger dootuñu ko am loolu mooy li nga ni ci ne Cheikh wax ni révolution pire la ndax bi mu ñëwee fas te booba jënd jaam dafa xew te boo jëndee jaam ni ko noo tudd mu wax la tur bi ko baayam tudde dangay dindi tur wa ni ko mubaarak nga tudd léegi seetal lool ni mu ñaawe ku jënd jaam rekk ni ko nu la sa baay tudde mu ni nàngam ñu dindi tur wa ni ko mubaarak nga tudde léegi c'est-à-dire mbaarak mu metti cheikh ba mu ëpp bi yàlla commencé di dawal leeram ñépp wuti ko pour jël wérd ku mu may wérd rekk ni la nu sa papa mu la tudde nga ni nàngam mu ni la léegi mubaarak nga tudd seetal boobu affaire mujj na boo demee kër boo nee mubaarak téeméer wuyu <laughs> kenn xamatul looy dem ba ku ne turu jàmbur ba nga delloosi ko seetal seetal boobu liggéey mubaarakun mubaarakunin tasxabu wabnu mubarak wallaay ma nga ca tijaan waaw ah comme ñoom nee ñu texet ak am xaalis a tax doomu jàmbur bu ñu jënd rek ni ko mubaarak nga tudd leen cheikh it fexe ku mu may wér di ni ko mubaarak nga tudd mujj dëkk bi yëpp tudd mubaarak kenn ku ne dellu ci sa turu baay ah seetal loolu boobu révolution ken mësu ko gis mukk mubaarakun in tasxabhu wabnu mubaarak wallaay ndeysaan moom mbiram dafa doy waar mësuma gis mukk mel ni moom xam nga ni Maodo fi mu toll ku muy daanu ci yow xaal am nga cër waaw te li waxal Cheikh Qutbi ala al Aqtabi la wax Qutbi على الأقطاب غير مكذب إذ هكذا أنبى النبي فصدقي وا تبي مكوي وخ أقطاب يبقى مكوي دقلو تبو نكل وان دق مفدكو بني فد لولو موي لي سي نه موتاخ سلك الانبياء اك سلك الاولياء مو في نه سلك الانبياء ختم يبي يونت silkul awliya xatmiya bi cheikh jël na ko yonent bi bi mu jëlee xatmul ci silkul ambiya xatmiya bi ba léegi benn yonent taxawul ci kanamam ni ko maa ko maa ko jël moo lay wan ni cëram la silkul awliya kenn taxawagul ci kanamu cheikh ni ko maa ko jël ne am na fi ñoo am daraja ñoo xam ni bu loolu amul woon ba tey taxaw nañ ci kanamam wax ko ko waaw parce que Maodo du mbii fan dëgg-dëgg kon nag bu dee dem ba di daanu xaal ci cheikh noonu di wax qutbi ala al aqtaabi gayra mukadabin id hakada amba nabiyu fa saddiqi waaw moom dafay daanu xaal ci cheikh bu métti métti ndax daf ko jaaxal daf ko jaaxal sëñ Babacar si dem na ci lu ne mu wax ko cheikh wax ni mooy sultaanu salatin wax ni mooy burhanul barahin moom it jaaxle rek ba mujj xamatu lu muy wax mu di ko wéy ci wolofal <laughs> wallaay ndeysaan ndax jaaxle rek waaw waaw naan boo cheikhu ahmadu tijaan mayam nga siiw ne ci réew ma sëñ Babacar a ko way cheikh xutbul wujudi fa cheikh yàllaa ko may mayu maam yi loo ci man man ni yéen a ngi saalit de Serigne Alioune Gueye ni ma noon tey wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ba tax na circule ambiya ba circule awliya yoo ñaaña rekk fi nekk leneen nekk fi amul bu ñetteel kon nag yal na yàlla taas ci seen barki te yàlla tëbbunu ci seen leer dafa am ñetti mbooloo yu seet si cheikh xam nga ñetti mbooloo ñaata la juróom-ñeenti nit yu jóge ci ñetti quartier ndax nitu xaqiqa yi ñetti nitay seen mbooloo bu ko defee ñetti mbooloo ñëw seet si cheikh mu ni ñaata la ñu ni ko juróom ñeent lañu ñu ngi jóge ci ñetti quartier mu ni nañu agsi ñu agsi ni ko dañu jàq lool ñu bëgg ñëw ci yow ndax nu tëbbu ci leeru yonent bi ci sa kanam ndax nun dal ñi nun ñun juróom-ñeenti ñi nun bopp ak li nu gis ci dëkk bi ni mu bone nun nu des ala sirat al mustaqim cheikh ni leen al istiqaama ñu ni ko ay naam mu ni fi hada al waqt ñu ni ko eey eh, naa mu ne xayru mumkin xayru mumkin seetal loolu te waxtu ne yaa ngi naan ihdina siraatal mustaqim cheikh ni mënatul nekk waaw ah, ndax diine ji déjà glissé na jëm ci folklore histoire sainte glissé na jëm ci caricature kon li ngeen bëgg mënul nekk nanu seet beneen formule loolu kañin moo ko sañ ci kaw suuf parce que daf ko gis daf ko gis nun suñu diine yépp léegi diine folklore la maa la ko wax te seetal ba ko Cheikh tawatee ni mu yàggi kon nag xanaa rawatina léegi rawatina léegi amoon naa sama maam bu jógee tuubeen la ma nga jógee ci siin ñëw tuwaawan tawarkal la yàlla xam na ko maam basi wallaay ndeysaan ku dee julli dafay fecci fecci koppar yi ci kileem bi mu def ci séram di ko xool mbaa jëluñu ko te mu ngi ci julli gi ma ni ko maam kuy julli doo seet doo seet sa xaalis mu ne ah lu ma ci xam damay bañ ñu jël ko waaye benn bés muy jooy rek ma ne ko waaw ah, looy jooy mu ni dañ ni bu ma dee ba ñu suul ma du ma reer ma ne ko looy doyati reer ne ko dee bu ñu sul la kay doo soxla reer mu di ko jooy wallaay ndeysaan ma ni lii de séeréer rek ko sañ tabarkalla tabarkalla ah mu mel ni kon cheikh révolution bi mu def ci àdduna gis nga ñii di jur doom di sànni doom ji ni mu ko daan metti parce que ne dañu dof parce que doom bi ak njaaloo bi bokkuñu dara doom bi euh, loxo bu tedd bee ko defar mës ngeen gis nit ku ko mën a defar ku dul yàlla Mais ça n'a rien à avec le péché. mais xamuñu ko parce que rek sa be sa benn bàjjane lay wax woy yaay man fu ma jëm bii gàcce nangam nangam nga dem rekk fekk ku yàlla defar ba mu jekk nga dem sànni ko ci àll ba wallaay xaj yi di ko lekk ah ci koo xam ni yaa ngi yëg yëg ci sa biir loxo yoo xam ni mooy loxo ku tedd ki di netaal ki war a juddu mu juddu ba noppi benn bàjjen bu tëxët rek yenn loxoom naan la rus naa rus naa nga jël ko rek sànni ju ko wundu ya di ko xëccoo ah moo tax mu taxaw ca tem li mu ci def kenn mën la ko nattil ni leen bokkul ak bakkaar bi bakkaar bi nag bokkul ak loolu bakkaar bi bu la ko yàlla baalee baal na la ko waaye kii moom jaamu yàlla la nga àttan koo jël ak la ca yàlla daj juróom-ñeenti weer nga jël ko rek dem sànni ju ko ca àll ba loolu kenn du ko def la mu ca daj dafa mujj rek chargé ca mission arabiyum nu saaya moom itam la mu ca daj kenn mënu la ko nettali wallaay ndeysaan góor gu baax gu amul morom moom la ñu tuddee Sidi El Arbi bi bii ci ci rajo bi Sidi El arabiyum nu saayax lañ ko tudde arabiyum nu saayax dafa dem a dem ba lu mu la ñaanal rek yàlla nangu ko mujj na cheikh dootul ñaanal kenn boo ñëwee rek mu ni demal ci arabiyum nu saayax mu ñaanal la tabarkalla tabarkalla moom la ñu tudde Sidiye Larbi bii ci rajo bi arabiyum nu saayax lañ ko tudde ndax baayam benn nit rek la waaw aman njaay sàmb ndukumaan ko jur moo tax maa ko jur dëgg-dëgg baayam bi muy laata gaañu la gàddu la mu jële ci arab yam nu saayix yépp indil ma ko ni ma mu ngoog ci sa loxo bu ko siidi soxlaa nga initié ko waaw boole ko xasida bu rafet bu mu def ci man ma jàng xasida bi mu ne ma mbaa kontaan nga ci mu ne ko mukk kontaanuma ci dara mu ne ma lu tax ma ne ko danga ci tàggoo ma ne ko xasida bi danga ci tàggoo moo tax kontaanuma ci waaye dafa dem rek gaañu dafa dem rek gaañu maa xam mag ñu baax wallaay ndeysaan mag ñu baax ñoo xam ni kenn ku ci ne bi ngay laata génn àdduna def nga xasida tàggoo jox ma waaw muy sëriñ Muniiru muy Aman Njaay Sàmb tabarkalla biir barke surtout Hajj Maxtar Baabu ñoom ñëpp seen xasida yu bees yi xasida tàggoo la maa ko xam moo tax bu ci ne moo ko jàngee damay triste yàlla xam na ko mais amal Njaay Sàmb ni mu yéemee dafa ëpp waaw bu may dem tournée rek lu mu xiibon xiibon ni ma naan dem daan nañu topp àll bi duna am lu nu lekk duna am lu nu naan topp àll bi rek topp àll bi rek may tooñ sëriñ mu niiru bu ñëwee rek mu tëdd ma ne ko yow mii daal danga ragal coono mu ne ma yal na ca àgg ak jàmm walaay ndeysaan ni ma yal na ca àgg ak jàmm waaye bi ma ci àggsee xam naa ne ndeke moo ma tane fuuf yàlla xam na ko damay saalit rek di saalitaan sëñ Babacar nen soo amee sa màggat bu ko ne na nga fa nee ko rek tey lu lay metti waaw kay <laughs> na soo amee sa màggat ne na nga fa naane rek tey lu lay metti ndax bis bu nekk lu koy metti wallaay ndeysaan yàlla xam na ko loolu kenn mësu ko gis wante yooyu lu ko gën a am solo amul nit ñoo xam ni dem nañ ci seen tarbiya kilifa ba seen dem bar sax sax dañ koy yëg waaw di tàggoo di tàggoo di tàggoo ndeysaan alaaji njaase ba ma ci mujjee yónni Omar Samb ma ne ko demal seetal ma ko ndeke booba ñaari fan rek ko desi ci àdduna mu ñëw ni ko góor gi ne mi ngi laa seet na nga def nag yow itam góor góorlu nga génn nag mu ni ko soo demee ni ko bu ma jëppiwul rek na ma bàyyi ma dem ca gannaaw ëllëg gaañu seetal loolu bay donde bay donde lettre ba ca Abdou Koña wallaay ndeysaan ñooy laata gaañu bind na ma lettre juróom benni page jox ko Alaaji Abdu Koña président Dahiratoul Kiram mu indil ma ko ma jàng ko ree ba tëdd ci ma ni ko nekk ko ma ngay saalit leetar ba ma ngi ci bind ila waarisil ambiya di ma nga bind ca leetar ba ila waarisil ambiyaay wal awliyaay wal mursalin ni ko ah. ndeysaan ñaari fan la ca teg gaañu wallaay ndeysaan ñaari fan la ca teg gaañu may donne benn yàlla xam na ko amu ci kenn ci ñoom ku ñemee dem ci sama turandoo te tàgguwulam kenn ci ñoom maa la ko wax loolu moo am ndeysaan Alaaji Baara Njaay nag moom moo ca gën a doy waar ndeysaan waaye booba tànk yi sax dox bu baax mënatu ko mu ne ma dama bañ rek sunu daara ji ngeen def ko daaray ambiance def leen ko daara tarbiya moo gën <laughs> walla ndeysaan dama bañ rek sunu daara ji ngeen ko daara ambiance def leen ko daara tarbiya moo gën ma ne ko ok naa ko jottali ñi ma ko war a jottali Alaaji Baara Njaay ma ko wax wallaay ndeysaan moom itam dafa dem rek gaañu yàlla xam na ko ñoom dañuy tàggoo dëgg-dëgg Haaj Maxtaar am noonu moom itam bi ñu tàggoo ñaari fan rek waaw mënatul dara ma gunge ko ba ci bunt bi mu ne ma mu gestu ma ni ma nit ñi yu ñu de ma ne ko xam naa ko mu répété ko ni ma yu ñu de ma ne ko xam naa ko mu ni ma teeyu ñu de ma ni ko xam naa ko mu ma kon nag bu leen wax sa xol ndax teyuñu waaw loolu la ñu tàggoo mu dem rek wallaay ndeysaan loolu kenn mësu koo gis Alaaji Ousmane Kan bu Kawlax moo ma wax ci kanamu Ousmane Cissé ni ma dootuma la contre mukk ku ñëwati fen ma it denc fen fen wa rek waaye xam naa ni ci dëgg nga nekk Alaaji Ousmane Kan ma ko wax ci kanamu Ousmane Cissé ni ma maa ngi wolu sax amat coor ndax dafa am ku ma ko bëgg yónni ci moom ndax kooka daf ma daan trompé ci yow rek yàlla xam na ko ma ne ko ak ah, kon nag tooñ na ma ne ko kon nag tooñ na tabarkalla tabarkalla ah yooyu rek a fi nekk yooyu rek a fi nekk xam naa moom ko màgget màgget nga waaye ko yàlla may nga dundati si lëf rek mu baax de baax na de moom daal xanaa nu di ko ñaan rek tabarkalla ñu di ko ñaan rek dund si ba ca kanam wéttali sama kilifa yii ba Maalik ak ak bokkam yu baax yi mu bokkal lépp ndax Sëriñ Moustapha dafa ñëw ni ma dafa bëgg ci koor gi laylatul qadar nga ñëw fa mu ni ma wax na koog man ma ni ko wax xanaa ma seet ko waaye booba fekk na it eh, ma ragal rek ni koor dafay xaw a metti as lëf yàlla xam na ko waaye faf nag mënul nekk bi koor gi passé ma ne ah nañ ko def benn yoon ñu daal di bëgg a waaj ñu ne ah sa maam bii de Seydou Nourou dañu koy defal dara ma ne ah kon nag sañu def dara te muy def dara ñu bàyyi ma ne kon nañu jàpp bële ñu jàpp bële ñu ñëw ni ma sa waa kër yële ci Sokone waa kër ala jaamadu dem dañuy def dara de ma ah kon nag bu nu defandoog ñoom sa sa ñunu ko man bàyyi beneen yoon jékki ñu ne kon nanu jàpp semaine ba ca des semaine boobu ñu jàpp ko ñu ne ah ziar général bi dafa ñëw de mane kon nag nanu bàyyi sa ñunu ko defandoo wallaay ndeysaan noonu rek noonu rek la di parce que nit kii dafa war a xàmme waaye ku xàmmewul nag moom daaniki rek c'est pas noonu rek la ma ni konteenu ko fa ba gàmmu ga rek wallaay ko fa bàyyi ba gàmmu ga rek <laughs> eh, am ku ma ni eh, fekk na noonu la noonu la sax tabarkalla tabarkalla yàlla daal loolu la dogal foofu ba gàmmu gi ñëw kenn naamu ci pexe eh, ñu indil ma nag ñu indil ma kaset kaset xam nga kaset yi am na ñu ciy woy waaw euh, ñu ñu indi ñetti ñet ñetti waykat ñetti waykat ma déglu boobu ma dégluwaat ba ca des ma dégluwaat euh, ma ne kii de euh, woykatu mystique lay mujj nekk Eh, eh, ki ma jëkk a déglu ñu ni ma kooku diw la tudd ku ñaareel ki ma déglu ko ma ni leen kii de idéaliste la bien sûr on lui reproche son alliance avec Ablaye Wade man mais ça n'a rien à voir avec le fond de ce qu'il dit parce qu'il chante il chante la vérité de sa vérité et, et ça c'est magnifique